Kadior Production lance sa saison le dimanche 16 octobre 2022 à l'arène nationale mbokk yi Kajoor production ànd ak Ibrahima Diop ñoo woote ginnaaw bi ñu tëggee combat Gris Bordeaux ak Ama Baldé ba pare nee nañu le 16 octobre 2022 ci arène nationale la ñu ubbee seen saison ci diggante armée bu benn baraak ak mbay guy gi bawol bawol bu saf xorom bi lamb ji nag en live lay doon pay per view ci seen affiche point com waa Sénégal 1800 francs dong la diaspora bi 4,99 euros seen affiche point com le roi en pay per view au Sénégal jërë ngeen jëf mbokk internet yi jàkkaarloo ak ñun ci lutte tv point com ngi leen nuyu bu baax a baax a baax di leen ziare ki ñu toogal nag Balla Diouf la coach su jàmbaar wrestling academy ñu waajal seen combat ak Siteu le 6 novembre incha allah rabbi arène nationale Balla Diouf bëri woon ngeen ak Siteu wala boog doon ngeen waaj bëri ak Siteu ñu dem ba combat bi des ay minutes yu néew combat bu yàqu yàlla dogal na nag combat bi taxawaat na pour le 6 dama leen nuyu bàyyi la nga nuyu mbokk internet yëpp su ko defee ñu waxtaanee ko ndax fekk nañ leen fii. vingt heures moins huit ba léegi yéen ngi ci entraînement yi Cœur de Lion maa ngi lay nuyu bu baax a baax di la ziar. waaw maa ngi lay fay di nuyu waa Lutte TV yëpp di nuyu amateurs yeeg amatrices yëpp ah di nuyu diaspora sénégalais bi vraiment tey bu làmb di continuer di dox ñoom dugal nañ ci seen loxo mooy vraiment mooy sénégalais yi nga xam ne tey nekkuñu fi di jàpp suñu làmb ñi nga xam ne ñu ngi Argentine Brésil ah, ah Uruguay. Euh, Canada France Europe bi yëpp bàyyiwuma kenn di leen nuyu di leen jox seen wàccuwaay di nuyu monde làmb yëpp waa di wax ni ñëw nga entraînement ba vingt heures ñu ngi continuer di entraîner donc voilà ñun bon comme tàmm nañ ko donc heure bu ñu liggéeyee ba pare booy tamit am na ay séance dégraissage yoo xam ne ay charge yoo xam ne dañ koy continuer di ko def donc voilà ñu ngi ci wàccaay yi donc di ñëw ci sa rebondir si sa si sa question que ni waajoon nañu bëre bale passé euh, combat bi yàlla def dogal ci li mu ci dogal yàlla def loolu nekkoon beneen promoteur tey beneen promoteur ay jeunes mun naa wax ni sax seen i rakk lañ ñaari mbër yi ñuy bëree parce que ay xale yu ndaw lañu yu am am fayda jàng yor seen i euh, seen i suukar ak seen i Dakar jëmale ko feneen jëmale ko si dekkilaat combat bi nga xam ne tey amateurs yi dañ ko bëggoon temps mais abu sottiwul woon te xale yu ndaw di seen i rakk tey wane exemple boobu pour indiwaat combat bi wane ni ñaari mbër yi ko doon bëree ay responsable lañ ñaari mbër lañ yoo xam ne tey làmb da leen soxla te ñaari mbër yu am fulla lañ am fayda am ginaaw am dayo ba pare am nu ñu mel ci làmb tey bu loolu amee tey xëy na tey euh, c'est du passé mais dañ ci dañ ciy dañ ciy jàng pour mën a dem ci li ñu jëm euh, ëllëg donc voilà di di si jël si li ñu jëm le 6 di ci si lu ñuy dem suba aussi ci li nga xam ne tey mooy seeni face à face parce que tey am nañu information que ni suba la mbëri di di def seen i jàkkaarloo donc même ci ba si jàkkaarloo boobu tey ñaari mbëri tey dañ ci war a def preuve de de de de de de maturité xam nañ ni Sénégal ñëpp xam nañ ni ñaari mbëri yu yaru lañ ñaari mbëri yu responsable lañ mais tey xëy na mbër li liy nekk ci ginnaawam lépp mënu ko contrôler tey maa ngi ñaan tey ñaari mbër yi vraiment woo seeni i supporters ak seen i amateurs ak seen i accompagnants ci discipline. parce que combat bee ñu jógee tey combat bi dañ ci war a jël ay ba ci combat bii ñu jëm. mu doon réussit total bien vrai que sax pour ñaari mbër yi mais pour vraiment ñi nga xam ne mooy xale yu ndaw yi nga xam ne tey ñoo tëgg làmb ji ah muy ñooy muy ñoom ñuy seeni rak wara a war a jox exemple donc tey mun naa wax ni combat boo xam ne Sénégal ñëpp ko soxla ñaari mbër yi seen wàllu bopp seen combat bi dañ ko war a solde ndax ñoom ñaar ci boppam dañoo sonn parce que combat bi tey ñoom liñ ci daj mosuñu ko daj ci benn combat ci seeni carrière ba tax na ñoom tey dañ ci war a wane fulla wane ci fayda wane ci maturité boo xam ne ak professionnalisme boo xam ne combat bi dina àgg ci nii wala ci nee du supporter wala amateur wala benn géwal mooy ñëw di yàq làmb ji tey ñoom ñoo ci war a wane wan amateur Sénégal yi que ni ñoom ay mbër lañu te ay responsable lañu tey loolu lañ leen di xaar ci combat bi di ci woo ñëpp nag ñu ñëw ci discipline ci jàmm parce que làmb ñun bi ñu ko xamee woon bu njëkk bañ nekk xale amateur bi ñu daa dem làmb wala ay contrat dañ daa sañ ca xeeñ lu neex ah ñii camp bi naan waa ah, waa camp bi de ñoo gën a sañse ñii naan ñii ñoo gën a sañse du dëgg mais tey làmb foofu lañ koy xaar làmb tey ñu ngi koy xaar ci vraiment supporters yi dem bay di concours ay sañse wala di concours fair play wala di concours leneen mais pas ci animosité pas ci xeex parce que tey boo xoolee euh, bëri nañ fi at waa Géejawaay vraiment at cent pour cent bi dem fubbali foofu mu doon lu rafet a rafet a rafet exemple yooyu vraiment dañ ko war di citer di ko wax suñu xale yi suñu rakk yi nga xam ne ñooy ànd ak ñun du ñu gunge ci yenn événement yi vraiment mu nekk loo xam ne réussite total lay doon muy ku daan ku daanu yëpp benn la mais foo bi na réussir. papa ci lan ci lan la nekk ci ban programme ngeen ko tegal a un mois du coup. waaw papa boo xoolee depuis depuis depuis très longtemps ñi ngi ci benn programme programme bi moo continuer ba un mois di progr du combat. donc toujours nag ñi ngi progresser ñi ngi josé ñi ngi liggéey ñi ngi def ay atelier donc voilà mais ba fi may wax ak yow nii alhamdulilah ñi ngi sant yàlla di ñaana yàlla suñu mbër yàlla yóbbu ko ci combat bi ci ci taw féex ah am am jàmm am taw féex ànd ak xelam ànd ak léppam vraiment parce que ci lancé bi ñu nekk nii lancé bi ñu nekk nii vraiment macha allah et bu continuer nii ba ci combat bi vraiment suñu xel day gën a dal déjà suñu xel dal na mais bu si li ñu nekk nii bu continuer ba ci combat bi suñu xel dina gën a dal ndax ku xam Papa saw xam ko ci euh, professionnalisme xam ko ci mën bës xam ko vraiment ci fonk liggéey bëgg am forme xam nga ñëw ci làmb am forme kon mi ngi rey boppam suba ngoon guddeeg bëccëg tey ah suñu xel dal na mais ñu ngi continuer liggéey comme combat bi ñëwagul ñu ngi liggéey di waakirlu suñu borom ah ci bés boobaa mu jàppale ñu jàppale suñu mbër jàppale jàmbaar may ñu ndam. ban ban Papa nga soxlaa gis le 6 novembre Papa Sow bi bëri woon ak ak ak kan parce que bëri na fi ay combat gis nañ Papa Sow indi bu doy waar ah xeex ci bëre joxe ban Papa Sow nga soxla waar maanaam nga xool ay combat yi mu bëri woon état de forme yi mu àndi woon nga ne combat bi que Papa Sow boobu laa bëgg bi bëri woon at santaan ñing Papa bi bëri woon at santaan ñing ci ci dynamisme bi ci énergie ba ci ci ci mën paramètre ba ci xam timing wu la mu war a def at kañ la ko war a def at ni mu ko bëgg a defee ci ci ci ci ci ci ci ci doole ja puissance at rapidité ba vraiment at euh, technicité ba wax dëgg yàlla euh, combat boobu tey euh, Papa Sow bëri woon at Santa Gningue tey defe naa ni bu indee lu mel noonu combat bi sax mooy gën a gaaw que combat am ak Santa Gningue. c'était en 2007 combat bi ngay wax ni mais est que mën nga mën nga amaat boobu noonu pour nga amaat ko naka naka naka ngeen koy liggéey yéen waa Jàmbaar. xam nga sportif. ci xel la mental la il faut avoir un mental solide et travailler durement et persévérer et gëm sa bopp te loolu yëpp daje na ci Papa Sow te tey mun naa wax ni ba saison bi tëjee ñun tëjuñu on a continué les travail préparé nañ fa ay combat yu bëri Papa gunge gunge leen ba seeni combat jeex saison bi tëj ñun ñu continuer liggéey tey ba ñu ngi ñëw à un mois di combat te dañuy continuer liggéey ba combat ba des ñaari fan tey nag liñ ci doon séentu yëpp ci programme d'une manière générale ci palette li nga xam ne moom la ñu bëggoon am nañ ko à quatre-vingt pour cent li ci des yëpp nag euh, ci loxo yàlla la nekk donc waakirlu ko rek ñaanal ko yàlla yàlla yàlla yóbbu ko ci bés bi aar ko ci te may ko ci ndam bi jaaxi na bi mu lan mooy avantage Papa ci combat bi avantage am bëri na ci combat bi avantage am déjà euh, at si adversaire bi mu am moo ko sut taay adversaire bi mu am Euh, ñemeen la def adversaire am du ragal adversaire la boo xam ne aussi tey euh, am na fu mu bëgg dem ci làmb adversaire la boo xam ne tey ah, neexu la bëreel ci géew parce que waaw Siteu neexu la bëreel ci géew ndax tey ah, mbër bu foorul mentalement doo mën a dékku Siteu at ah, ay ay salañ salañam ak ay détaillam ak ay loolu moo tax lépp rek il faut pas laisser rien au hasard te papa yàlla def na ni Euh, am na longévité boo xam ne ci carrière bëreeg ay xeetu adversaire yu coriace yoo xam ne tey mun naa wax ni combat bi euh, combat de euh, comment ni ma koy waxee de de maturité mooy tey Papa Sow bu mature la ñu bëgg a gis Papa Sow bu am responsabilité et Papa Sow bu décidé te loolu yëpp ñu ngi ciy liggéey te gis nañ ñuy wax dëgg yàlla ah macha allah daal mm-hmm. waaw. macha allah. léegi ndax doole mënu def différence foofu joué ci combat ba par rapport ak seen âge comme ni ko Papa Sow magee dañuy wax maga a xale sport day favoriser xale ndax yow gëm nga loolu. Euh, gis nga làmb làmb rek ngay gis ñu naan mag ak xale. sport mbër bu la de vie dàq la dàq la entraîné gën la di teel a tëdd boo amee vingt ans moo am quarante ans. boo saagul moo la ëpp doole moo la gën a solide parce moo la gën a hygiène waaw hygiène de dafa am solo te Sénégal ku xam Papa Sow xam ni ku am hygiène de la xam ni ku professionnel la xam ni du génn guddi xamul sax guddi entraînement la xam këram kenn xameewu ko ci lenn lu dul professionnalisme heure bu xëyee dina entraîner bu tëdd jotee dina tëdd bu lekk jotee dina lekk bu dem entraînement jotee dina dem entraînement bu wax la jotee dina wax la donc mbër mu mel noonu boo koy encadré toujours rek da ngay jàpp ni xale la te man fi may waxee ak yow nii ba léegi man damay jàpp ni Papa saw xale bu ndaw la ndax maa ko mag fuuf man maa mag fuf Papa saw man xëy na nag teel a bëre moo tax ñu naan nit ki mag la te làmb léegi dañoo tàmm lu bees boo yu bees yu ñëw rek ñu bëgg a màggetloo ñu fi nekk c'est que loolu dañ ko war a bannir ci làmb reconnaissance dafa am solo ci sport nit ku fi nekkoon am lu mu fi def tey lu bees warul ñëw rek ñu effacé lu fi nekkoon te làmb loolu daf cee yomb lool làmb dañoo teel a effacé nit teel rey nit teel a seppi loxo nit ci làmb génnee ko yooyu dañ ko war a bàyyi ci làmb di ko bannir di jox nit ñi seen juste valeur ñi nga xam ne tey def nañ fi dara bëggal nañ sénégalais yi am na lu ñu fi def même bu seen temps jeexee ñu continuer di leen honorer tey doo gis mukk ay mbër yu ñuy honorer comme ni ñuy honorer les anciens footballeurs les anciens basketteurs di ñu làmb ngay gis ñu rey la éliminer la loolu dafa war a jeex ñuy jox nit ñi seen valeur yu ñu mérité merci beaucoup lan ngay wax euh, mbokk mbokk amateur yi ndax combat boobu tamit yaakaar naa combat bu neex la war a doon ak ñaari camp yi lan nga leen di wax parce que combat bi dañu bëgg ñu def ko ci jàmm ak salaam que ça soit ñi ànd ak wala ñu ànd ak Siteu yëpp ñëpp ñëw ci jàmm salaam stade fees ñu animé bëre bëre bu metti xeexee bu metti que le meilleur loolu wax naa ko sànq mooy boo xoolee ci sama ci samay ci samay biir wax dugal naa ko ci wax naa ni mbëri tey fi ñu leen di xaar tey. mooy ci professionnalisme mooy ci grandeur mooy tey ñi wër mbëri mooy tey ci mbëri laay njëkkee ba pare ci Siteu ak Papa Sow parce que ñoom ñaar ñëpp suñuy rakk lañ te ñoo bokk làmb ñoo bokk Sénégal te ñun euh, lépp luy yàq làmb ñun bëgguñu ko déjà ñun jàmbaar lépp luy làq yà yàq làmb bëgguñu ko parce que dañuy woo ñëpp ci professionnalisme tey moom la ñuy woo beneen camp bi woo leen ci jàmm woo leen mooy li ma la wax sànq ne la waa Géejawaay bëri nañu moom combat bu metti mu am tension bañ pare deux dimanche lañ ci teg dem football yi géejawaay mu nekk lu rafet tey loolu la ñuy ñaan ci lii bu ñu pareek ñoom ah ñu amaat ay yeneen rencontre yu gën a rafet tey nag ci combat bi lay lay demale ñi nga xam ne tey nag ñooy supporters yi vraiment ñu xam ne ñaari mbër yi ñoom lu ñu def du du du du du du du du du du répercuté ci ñoom ci ñaari mbëri lay répercuté bu ñuy dagg ñaari mbëri la ñuy dagg bu ñuy aj ñaari mbëri la ñuy aj bu ñuy sanctionné ñaari mbëri la ñuy sanctionné bëgg sa mbër nag ba yaaxal ko làmb jaru ko tey nag na ñëpp ñëw ci discipline dañ leen ciy woo ci discipline ci supporter parce que àdduna àdduna événement sax pour mu neex foog ñuy far fii ñuy far fii mais nañu far at discipline nañu far at raison nañu far ah te xam ni ku ci nekk rek am nga koo faral te benn tàkkusaan la te day jeex te ñaari mbër yi ñoo ko waral te waruñu leen yàqal kontaan ci Kadior Production lance sa saison le dimanche 16 octobre 2022 à l'arène nationale. mbokk yi Kajoor production ànd ak Ibrahima Diop ñoo woote ginnaaw bi ñu tëggee combat Gris Bordeaux ak Ama Baldé ba pare nee nañu le 16 octobre 2022 ci arène la ñu ubbee seen saison ci diggante armée bu benn baraak ak mbay guy gi bawol bawol bu saf xorom bi lamb ji nag en live lay doon pay per view ci seen affiche point com waa Sénégal 1800 francs dong la diaspora bi 4,99 euros seen affiche point com le roi en pay per view au Sénégal.